am na ci moodu moodu yoo xam ne dama leen a xam nga du ma leen yërëme ay ah, réew war a jot sa soxna ngeen nekk en distance nga ko jot téléphone ngeen waxtaan nelaw na wala allo foo maa ngi nii ci wax talu la amoo koo waxtaanal guddi amoo koo waxtaanal bëccëg boo daggee benn cëpp Sénégal xamoo ban coono nga fa daj sonn bay bëgg a dëkk nag ceetu 15 jours doyal sëkk am na ñu fi def 3 mois ba 6 mois te duñu doyal. suñu ñibbi sax dañuy xam ne ñun ñi doyuluñ seeni soxna ndax lan seeni soxna pare seeni soxnaa leen tal seeni soxnaa leen di toppatoo waaye am na ci jeggi moodu moodu yoo xam ne jëlal kot la ñuy xaar ñoom daal kotale intéressé du wax ju neex seen borom kër du jëfin wu neex su nekkee Europe du neex bu ndaggee bee ñëw fii du neex loolu fan la fan la góom di wére fan la góom di wére yow nga war a jël sa boroom kër gi bu nekkee yow distance ngay waxtaan ak mu wax ju neex joo xamante ni barke Serigne Touba Mbacke day bëgg a dagg bee rek ñu cëpp Sénégal tey daal di bëgg a jug rek ci saase moom daal dagg bee rek daal di ñibbisi noonu ngay téye sa borom kër fu mu toll xelam di ci yow bu dikkee nga ba lépp li nga doon def nekk ci moom ndax tukki dafa métti waaye topp sa borom kër rek yow bu tukkee intéressé wu la bu fa toogee lu mu fa mën di def dundoo ko yow na fii na côté di ñëw nay neex déedéet bu daggee bee dikk nga cee toog moom 15 jour wala 20 jours pare ca waaye loolu tax na kenn di wax. boroom kër yi moodu moodu yi gis nga jeeg bu ci góorgóorlu sa jëkkër wallaahi azim di nga màtt sa loxo doo ko ci ëkk te di nga jooy fu kenn newut moodu moodu yi sonn nañ moodu moodu yi nañ daw nañ bay bëgg a dee boo ci boolee jabar joo xam daa mel ni boo jëm mbaay nag nekk ak yow distance li jëntiw la xamul sa coono chaque jour mag lay woo du jooytu minute bu jot damaa feebar sama boppay mitti bu ëmbee sax balaa doom jaa dikk nga ñàkk ja 4 4 million bu doom ja dikkee bokkut ak la nga war a mën a def loolu xel la yow daal na xaalis bi dugg moo la intéressé jàngoro joo am andi ko bu jàngoro amut nga jooyatu ko ba mu dikk ngay faju dëkk hôpital te bu dikkul nga mer bu sa borom kër loxoom bu dikkul nga mer découragé di jàmbatu guddeeg bëccëg bu la woow du la sax sa woo ndax du am wax ak ak njàmbat lu mitti mu boole ci nag dagg bee dikk ni jàdd sa kanam ñaari fan te jëkka découragé bëgg a dëggaat bee ñibbi ak munu koo romb jabari moodu moodu ñu ci bari nag te lii may wax fu leer laa ko teg dee leen gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax li ngeen bàyyi seen loxo bari na de ci ñama ko war a wax